compagnie pétrole bu Nigéria. Mhm. ak bu Maroc. Mhm. ñoo koy financé mu toll ci vingt cinq milliards de dollars. Mhm. léegi nag euh, liggéey bi. dafa yéex trop. te ñëpp xam nañ ni euh, Sénégal dafa am potentiel bu am am solo. Euh, bu nekk fële cinq louis ak Kayar. donc te. problème am na Europe ci nu mu tuddati gaz bi nga xam ni moo daan jógee Russie. Nord un ak deux bi pour mu continuer di leen euh, approvisionner comme mmh. avant parce que conflit bi ñëpp xam nañ ko duñu ñëw ci détails yi mmh. léegi nag euh, pas ñu ne Sénégal en fait foofu la xaw absenté ci mmh. prise de participation ci li ngay tudd nii léegi ñoom dañu envisager ñoom européens yi euh, ñu créer benn benn benn gazoduc boo xam ne léegi au lieu muy jóge nigeria parce que Nigéria la waroon jógee ba ba ba détroit de Gibraltar muy Espagne nga xam ni pays africain bu mu traverse ñu connecté benn sea line ak benn débitmètre euh, nattal ko li mu fa dugal euh, facturé ko mu euh, ba ba ba muy àgg Espagne donc day doon loo xam ne pays yi mu romb yëpp ci biir géej gi parce que ci biir géej gi lay jaar gazoduc sous-marin la woon <coughs> dañuy <coughs> dañuy am benn quote-part donc mu nekk benn infrastructure boo xam ne. Euh, dafay laawaale day mën day jëlaale production wu euh, Afrique de l'Ouest yëpp yóbbu Espagne. Mm-hmm. léegi man maa ngi sant yàlla bi projet boobu amee ay retard. Mm-hmm. ndax financement bu lourd bi mu laaj. Mm-hmm. léegi ñu trouver plan B. mu ni li gën a gaaw. mooy ci fi ak deux ans. léegi mën nañu bàyyi bële nële en attendant. léegi ñu déparé Sénégal. léegi au lieu ñuy jaar détroit de Gibraltar. Mhm. Euh, GME benn gazoduc boo xam ne c'est pour le Moyen-Orient. Mhm. GME mooy gazoduc du Moyen-Orient. Mhm. léegi production Sénégal nañ ko connecté foofu comme ça rapidement day mën a acheminer wu vers l'extérieur. kon léegi projet bi mooy en attendant euh, boobu bu mag projet bu mag bi pare. te Maroc ak Sénégal ba léegi Maroc ak safurla euh, Nigéria. ba léegi ñoom ñoo yore. Euh, euh, projet gazoduc boobu. Mm. léegi lan moo ci njëriñu Sénégal ak lan moo ci intérêt Sénégal. Mm. xawma ko lu dul. Mm. mu yokk flux bi mu mën a exporter. à l'étranger et partant revenu yu mu ci mën a tiire parce que euh, flux moom ci nga gën a mën a jàllale volume que nga koy transporter ci ay méthaniers ay genre bateau yoo xam ne am ay ngandam bul yooyu dafa am une contenance déterminée ba noppi dafa am ay coûts de transport alors que une infrastructure boo xam ne investissement fixe la euh, streaming lay doon boo xam ne da nga koy facturer tout juste kon loolu bu ñu fa tolloo nag ça veut dire que ñun dañu nekk en phase de production pétrolière et gazière donc euh, ci bloc boobu toujours vraiment bëgg moon dugg ci lii c'est mon domaine mais comme da nga ni naa naa naa informé sama sëriñ parce que moom mu ngi fi Euh, Petrosen def na communiqué temps mm-hmm. euh, ni BP dafa retiré wu du bloc de GTA mooy Grande Tortue Ahmeyim bi nga xam ni moo nekk euh, Saint-Louis ak mm-hmm. voilà donc moom 60 pour cent la amoon BP moo nekkoon actionnaire majoritaire. Mm-hmm. Sénégal am 10 pour cent. Cosmos yor li ci des. donc 30 pour cent. donc léegi BP dafa bàyyi 60 pour cent. mais 60 pour cent yu intérêt yi daf ko séddoo ak Sénégal léegi Sénégal dañ koy jox 15 pour cent euh, cinq pour cent yi ñu jox ko Cosmos mi nga xam ne moo jaayoon mais loolu dafay compliqué pour ma dugg ci li tax raison yi mmh. raison yi dafa dafa yaatu dañ ciy am beneen jotaay waaw raison yi dafa yaatu mais mais y a des y a mmh. parce que euh, xam nga y a des euh, à Londres et aux États-Unis mhm. ci dossier Petrotim bi mhm. parce que bloc yooyu c'est toujours le prolongement de l'affaire Petrotim mhm. parce que BP nañu fàttaliku que dafa xeexoon pour am nekk actionnaire majoritaire pour que mu nekk production bu dem Europe pour briser le monopole euh, euh du gaz euh, de, de la Russie sur le gaz européen au lieu de Cosmos qui est une société américaine qui est une concurrente donc euh, bu demee ba rocceeku rek dafa am ay soubassement soubassement yi nag mooy leen li ci njëkk annoncé woon naa fii ce qui est vérifiable que le 11 février 2020 dañu signé benn SPA euh, sale and purchase agreement accord de vente et d'achat sur la totalité du gaz de Grande Tortue Ahmeyim Matar Cissé moo nekkoon euh, euh, ministre des pétrole et du pétrole et des énergies ak son son mauritanien Euh, Mohamed Ould euh, Veta. Mohamed Ould Veta ak euh, Makhtar ñoo ko parafe kan la ñu ni moom la ñuy jaay gaz bi fa jóge yépp benn compagnie bu tudd BPGM. British Petroleum Gas Marketing. kooku filialu BP la. kon BP la jaay gaz bi yépp kon tey jii buñ ñu nee. BP rocceeku na. joxe naa ay actifam il n'est plus. partenaire technique. mais moom moo teg loxo. ci totalité gaz bi jóge GTA Ahmeyim Grande Tortue Ahmeyim loolu aussi information la boo xam ni. nit ñi nañ ko intégré. ko xam léegi nag ci mbirum pétrole. ak gaz dafa am lu ñuy wax farm out ak farm in. cest ngay dugg ci société bi ci ko entreprise bi. ak nga ciy génn. bu ci nekk dafa am ay normes. parce que booy jaay ay actif ci pétrole ak gaz. bi nga ko jaayee par exemple boo ko jaayee cent milliards. Mm-hmm. day am looy retenir. Mm-hmm. li ñuy wax royalties wala redevance. Mm-hmm. nga étaler ko sur la durée de l'exploitation wala nga indexer ko en volume de production exemple BP pour 37 virgule 49 pour cent d'actifs parce que amandoowul 60 pour cent d'un coup. parce que jënd ndànk-ndànk parce que Franck Timis ak Aliou Sall dañu déteniroon 30. ñu jaay ko 5 puis les cinq restants. après Cosmos moo ko yokkal. 37 virgule 49 pour cent d' actifs. Mhm. moom daf ci fay 960 millions de dollars. à mhm. titre de prise de participation. Mhm. Cosmos ba muy jënd euh, BP plutôt ba muy jënd. mais daf ci laxas ay intérêts mooy ay royalties. 2 dollars par futur baril liquide produit dans la limite de 1 milliard de barils. donc 1 milliard de barils multiplié par 2 dollars ça fait 2 milliards. plus 960 euh, de dollars. kon tey jii même BP bu génnee. royalties yooyu. Euh, da koy da koy continuer di toucher plus maintenant euh, moom la ñu wax ni moom la ñuy jaay la totalité de la production comme ça suba bu coow amee ci bloc boobu parce que xam nga ñu jëm ci élection xam nga boobu àla kulli aal dana am coow parce que euh, rapport IG génn na ci euh, ay enquête génn na ci gis ngeen reportage BBC beeg yooyu tout ça kon moom bu dara di am moom du ko impacté keneen ku mën a jël bloc bi ak lu ñu mën a trouver comme solution. pendant la durée bi ñu signé. Euh, BP mooy jënd euh, gaz bi jóge foofu kon moom ñoom ils se mettent en sécurité. te loolu day wane rek ni ñu ngi séntu en amont ay problèmes euh, contractuels. parce que dina am ay difficultés contractuelles. Mmh. parce que ni ñu octroyé bloc yooyu. Mmh. dafa poser problème léegi nag mmh. Sénégal. ñi war a jiite réew mi journalistes yi intellectuels yi médias nañu boole ci débat public bi aspect yi pour nit ñi peek ko parce que doon na ma neex lool ki bëgg a jiite ëllëg mm-hmm. wax lan la gis ci gouvernance pétrolière et mm-hmm. gazière parce que tey jii nii ñu ngi séntu gaz buy jóge euh, Saint-Louis mm-hmm. ñu war a am euh, terminal pétrolier terminal terminal euh, méthanier plutôt terminal méthanier mooy li raffinerie doon ci pétrole. Mhm. raffinerie gaz la gaz c'est pas compliqué da ngay liquéfier di regazéifier. Mhm. lu simple la kon waroon nañu am Lompoul wala Potou. Mhm. benn terminal méthanier boo xam ni suñu production ëllëg. ñu mën ko fa jël acheminer ko dans des points de distribution et de stockage. d'accord loolu euh, débat yi ñu war pose la. defaguñ ko ci jamono joo xam ne may attirer attention nit ñi. ni société bi exploité zircon bi. Mhm. mu ngi jël foofu yëpp. Mhm. pour def du désert un projet touristique xaw ma ndax gis ngeen comme déet. Mhm. il se lance dans le tourisme et dans le foncier. parce que ñoom dañu fa bëgg a def euh, un petit paradis touristique alors que foofu dafa war a am benn infrastructure gazière normalement boo xam ni euh, dafay waajal Sénégal comme par exemple euh, gazu Sangomar bi nga xam ne yow mi nekk Fatick xam nga Jifeer ak Fatick c'est c'est le même département la ah donc léegi production bi jógee Jifeer Sangomar gars yi dañ ko bëgg a yóbbu SAR pour traitement expérimental ñu ngi defar benn benn benn benn pipeline buy buy dem foofu. Hmm. bu buy buy dem ba SAR man dama gis ni dañu waroon a fexe ba département bi département de Fatick Foundiougne am une seconde raffinerie. nga xam ni euh, camion yiy jóge Mali. di jóg hmm. jël si carburant. Hmm. dootuñu soxla ñuy dugg Dakar. waaw ah, na sa yal na